dañoo xaw compliqué et euh, li ma bëgg a wax maa ngi koy gërëm ñun dañ koy ñaanal parce que yan wi mu yenu yan wu diis la te dama gëm ni man amul différence ak yenn bi suñu mag ñi yen woon ndax tubaab yi bi ñuy ñëw fii dañu coloniser ñëwuñu rek pour jël suñu ay suuf ak ay richesse avant ñu koy def dañ ne dañu méngale seeni jikko dañu fexe ba ñu accepté ñu mm-hmm. loolu mooy les politiques assimilationnistes gis nga tudd nañu sànq Jules Ferry. Hmm. Jules Ferry dañu woon les hmm. moom loolu la waxoon on des hmm. droits sur les races inférieures. mu ne elles ont l'obligation de les dominer et de les loolu moo fi nekk ba léegi. dañoo changer formule yi changer forme yi. Euh, franchement euh, li ñu mën a wax ci sujet bi dafa bëri am na loo xam ne moo ko seedeel ci ci Mamadou Lamine Diallo euh, je pense dafa am nit ku ne dafa am dimension yu bëri la Lamine Diallo digganteem ak diine ñu bëri xam nañ loolu c'est affaire privée la. te ba mu koy def bëgg woon sax siiwal ñii ba ñu leen recevoir maa ngi toog c' était dans un cadre purement privé. mu wax leen xalaatam ne leen dafa am loi boo xam ne gars yi ko doon glisser assemblée. c' est ça bi ñuy glisser loi bi dañu bëggoon ne acte contre léegi dañ koy fexe def ko seulement mu concerner mineurs yi ci réew mi. c' est ça. ñun loi boobu rek lañ am lu mën a lu ñu mën a dimbali fi mu toll nii ci wàllum góor jigéen ba ñu waxee loolu. commission des lois moom bokk fa dafaa demoon rek juux fa dégg loolu mu mu interpeller leen ñu def suspension de séance dem ngun-ngun yi woote yéeg wàcc génne loi loolu am na te ba ngeen ñëwee waxtaan nañ ci euh, euh, boo ko tuddul woon boo ci tuddul woon sax duma ko tuddee noonu euh, et c'est fondamental et c'est important dafa am yu bëree bëri yu ci am tey maa ngi liir maa ngi koy liir sax ci Yérim Post di di ko ci gërëm muy muy ñuy rappeler li archevêque de Dakar wax ci 133e édition bu pèlerinage mm. marial mm. muy rappeler la déclaration de Thiès de deux 2019 mi mm. ci rappeler ay principe yu am doole mu ne góor ak jigéen yàlla sàkku leen pour ñu nuroo da leen sàkku sàkku pour ñu mottalante dañoo war a mottalante waruñoo nuroo je pense loolu moom tranché na problème bi et sunu mag ñi loolu lañu doon dox ñi leen fi utu tey euh, et c'est extrêmement important c'est fort xaw ma lan moo mës a am lan moo mës a xew mais ñu jël xalif général de murit gis nga sénégalais yi dama ànd ak Mamadou Lamine jàll wër Sénégal wër ay kër kilifa diine yi parce que ci keppaaram laa màggee depuis bientôt 15 ans euh, mu ne ma Amadou dama bëggoon duma sañoon Sénégal dañuy def kilifa diine yi ñu def leen ay institutions sociales parce que nit ñee leen tànn boo amee doom tuddee leen boo ngénte woo leen boo deewee ñu ñu ñu ñu ñu jagat jagadee la yóbbul la leen sëriñ bi danaan indi leen ma ko ñu indi ko mu jullee la denc la. loolu du ñu ñàkk fayda gis nga débat bi bi ñu koy posé bi ñu ko li ñu ko posé yëpp première réaction ñi ci bind di def réplique suñuy kilifa diine la ñu attaqué. na ma dégg ñu ne xalif général des des tiij ñoom bu ñuy wax suñu président de la république du ñu ko sàllalu du ñu wax Macky Sall de son excellence la ñuy wax bu ñuy wax seen ñi ñu gëm dinañ leen waxal ay tur ba mu rafet ñu ne monsieur doo ko tudd suñu ay xalif généraux lu état du Sénégal waroon a ñaawlu. muy les li leen fi waroon a mën a wax ak sax les ambassades ak ministère de l' intérieur waroon nañoo woo wax wax ak ambassadeur bu France ne ko suñuy kilifa diine kenn du leen woowee noonu et ñu ñu ma ma rappelé ni xalif euh, euh, général des des Tidjane pour mën pour na pour ne pour ne citer que lui damaa fekkee gàmm bi ñu mujjee gàmmu foofu avant Covid ma ànd ak Abdoul mbay ak Mamadou Lamine Diallo mu recevoir ñu bi mu ñëwee ci diggante bi benn colonel bu France moo ñëw. indi ànd ak délégation base militaire bu France bi nekk fii bi ñu ñëwee ñoom ñoom toog waa euh, colonel bi génn discours am bëgg koo liir mu ne ko arrêteel ñii ñoo la fi jiitu suñu xalif général ñu dem France France moo leen di fekk si loolu nañ ko xam ñi ñoo ëpp France ci li ñu gëm ak ci li ñu incarné fii ci biir réew mi amul benn autorité bu toll nañ toll ni ñoom lu muy représenté biir France loolu dañ cee war a teg suñuy loxo parce que ñun bu ñu amee man sama doom Serigne Babacar si laa ko tuddee ñun bu ñu amee suñu ay institutions sociales yu toll noonu Sénégal rek la loolu am tey lu fi am mois de mars mais du ay doole ay politiciens ah ñun mu mënuñ si woon dara xalifa général des mourides moo taxaw mu jeex loolu yeneen dëkk yi ñuy wax di comparer bokkuñu ci amuñu amuñu loolu euh, am nañu doole am nañu ay moyens am nañu fu fu leen neex lañ ko jaarale te xam naa ci dara tax ndax dund naa ko man bi may dem Amérique Amérique moo ma may bourse ma dem toog Université Jacksonville bis ñaari góor jigéen ñëw toog mais gis nga loo xam ne amul tur du góor jigéen wala ña borom ñaari tur loolu amul sax tur nan la ko suñu société di accepté ñoo ñëw toog sama kanam jàng lu ne nag ma ma ne leen day lii africain yi ma àndul yëpp ne ma bul wax boo waxee tem nga wax lu ëpp damay ragal américain ne la dootoo fi ñëw man leen nañ ma yóbbu ma ñibbi parce que yaakaar naa ni bii mooy premier débat bu mu mën a am ak ay góor jigéen dootuma ko am loolu laa yaakaaroon yi phénomène bi évolué na ba tey ñu ngi wax lu ci loolu nga gis fañ ko jaarale ak fa mu jaar munuñ ci woon dara ba ñu toogee wax ba pare pour te dire Charles ñoom dem nañ ba ne dañoo bëgg a am doom parce que dañ ne ma dañoo am lu ñu naqari mooy xeex nañu ba ñu reconnaître ñu ci dëkk bi kenn sañu ñoo boddi bi ci des xeex nañ ba ñu dañ benn maire bu ñu teree maire bu ñu bind na ñoo bëgg a marié wu nga bañ maire boobu ñu attaqué la dal ci dal ci sa kaw léegi benn xeex moo ñu dese dañoo war a am doom <laughs> mu ñu ne ma ma ne leen fan ngeen ko teg ñu ne ma dafa am loi dafa am loi ordre social boo xam ni dañ koo dañ koo bafoué ci jëmale ko ci ñun man la ñu dafa am ordre biologique boo xam ne dangeen ko koo parce que ordre biologique boobu moo tax ñu baal ma ci waxin bi seeni waajur jur leen ba ngeen toog fii tey ngeen ngeen bafoué ordre mais li li mu wax sànq euh, euh, sama jigéen Gabriel dëgg la yan xale lañuy ñuy la ñuy adopté si fii lañ koy jëlee Afrique dans les pays vulnérables c'est extrêmement important ñu xam loolu euh, mais li ma gëm te te gëm ko dëgg-dëgg mooy nos peuples surtout le peuple sénégalais a déjà criminalisé l'homosexualité mhm. ferveur ba ma gis man demoon naa fa ñun nëbbatuwuñu bokk nañ ñu ñu néew ñu fa demoon bokk nañu ñu néew ñu ñemee signé te signé sax tubaab yoo ko fi indi li nga gëm kenn mënu koo natt mhm. mais sa engagement ñun ñun ceddo yi dañ naan xas bu ñu waxee dadul dañ mais dañ ko signé pour jëmmal ko ndax lu sëñ Mouta sëñ Mountakha signé waaw signé ko ndam la loolu la ñu signé pour jàppale leen ko et gëm nañu ni gis nga li ma li tax ma ne Séné au peuple sénégalais da ko criminalisé boo gàddu woon ku gàddu woon sa néew fii ñoo am économie mës naa nekk góor jigéen mm. mu gëm ñëpp xam ne am na sëriñ nga dem ak moom baax ya boo àggee doo dugg Touba. ku gàddu woon sa néew fii ñu ne la sëriñu tel Tiwaawan mooy sëriñam nga dem ak moom xalxuus wala boo demee du ñu nangu Sénégal gis nga Sénégal yi ni ñu toléré ni ñu mënee toléré ku ku génn àdduna ku fi génn àdduna rek baax. mu des homosexuel ku génn àdduna rek baax boo nekkee homosexuel sénégalais bi ñu des moom mooy débat intellectuel bi nga xam ne suñu élite politique bi lañ koy jaar ñi ñu war a jiite. maa ngi liir kakko bi nga xam ne moo ko convoqué débat bi am lomé di wax ci suñu mbiru moo nekk nangam nangam livre bu mu bind l'urgence africaine mu ngi ci wax la transformation structurelle vers économie arc moom loolu lay wax lan mooy économie arc-en-ciel ñu jàng économie ban concept la mhm. donc foofu lañ ko jaarale moo tax may wax sànq ni buuba li intellectuel yi def lay def mooy day day décomposer débat wàcce ko ba ñëpp mën cee jot et c'est fondamental parce que suñu intellectuel yi dañoo mën a manipuler les concepts dañoo mën a def du du triandisme intellectuel boo xam ne kenn mënu koo natt donc di leen di leen gërëm di wax ni gis nga ku ëmb sax sànqal Mm-hmm. mën naa bañ a ëmb sa jom mën naa bañ ëmb sa ngor mun naa bañ ëmb sa sutura Cuba dañ ko embargo ñaata année tey mm-hmm. bi ay nit ñoo fay dem di fa def tourisme médical nañu am ngor nañu xam ni suñuy valeur ñu ñoom sédagement rek loon doxal ñoom résistance bi ñu def c'était contre les politiques assimilationnistes dañoo conserver suñu ay valeur ba ñu ñun ñu jot ko dañoo am l'obligation de le garder et sur ce plan Tekki va rester dans combat bu ñu bu ñu Sénégal bu ñu sénégalais bu ñu bu ñu jàppee ni tey jii débat bu war nañ ko trancher mm. mais nañ jë nañ ko yóbbu référendum pour moins que ça pour ay virgule point virgule pour manipuler notre constitution dem nañ référendum Sénégal débat boobu naree indi violence ci dëkk bi ñu naan dañuy menacer suñu ay xalif généraux bu ñu demee benn Sénégalais du ko vote Ndiaye waaw Abdoulaye mm-hmm. waaw